beneen ba ci des ki nga xam ne mooy Victor Roque ci 86e minute loolu leen jox ndam Real Betis bi Youssouf Sabaly ñaari bal ci dara ci équipe boobu di Leganés ñu gis ne kon jamono bi jógee nañu ca ndàdde ga ñu nekkoon ndax bokkoon nañ ci équipe yi nga xam ne ñoo desoon ginnaaw loolu nag dégg maam dal di leen may ñu dal di muuf yéeg tuuti ci li nga xam ne mooy table bi ñu waa Real Betis ci ndam lu am solo loolu nga xam ne daal dinañu koy am tey jële ci li nga xam ne mooy Liga ci samedi bi nag ñuy xaar match bu solo bu war a dox ci diggante Real Sociedad ak ñi di waa waaye nag gone gi nga xam ne moom la ñuy wax Takefusa Kubo nga xam ne nag nekkoon na ci équipe boobu de Real Madrid daal dinay addu ci gannaaw bi nga xam ne ñu waa Real Sociedad dañu am ndorteel gu doy waar ci li nga xam ne mooy championnat ñu wàcce daje ak équipe bu mag boo xam ne ay joueurs yu mag dégg nga maam la ñuy doxantoo jamono bile muy match boo xam ne moom gis na ne kat ñoom waruñ ci mën a am jafe-jafe donte ne Real Madrid équipe bu mag la waaye mu ne lenn mooy problème Real ci jamono bii mooy ne kat dañoo am li nga xam ne mooy ñetti joueurs ci le ci li nga xam ne mooy attaque bi maanaam seen attaque bi ñetti ña fa nekk moo ne ku ci nekk ci ñoom voilà dafa bëgg di jouer même poste maanaam ñoom ñetti joueurs yëpp ñoo bokk benn poste bu ñu bëgg a fubal donte ne ay joueurs yu bokk li waral ba jamono bi gisaguñu Real Madrid ci li nga xam ne mooy voilà meilleur niveau am rawatina joueur yooyu nga xam ne jamono bi ñoom lay tudd muy kii ci mel ni Rodrigo voilà Kylian Mbappé ak kii di Vinicius Junior mën a ñetti joueur yu baax lañ mën a football lañu waaye comme ñoom ñëpp dañoo bokk li nga xam ne mooy benn poste bu ñu bëgg a football léegi-léegi sax gis ñoom ñëpp ñu dajee ci benn poste mooy li moo tax dégg nga maam ñoom nekkaguñ ci li nga xam ne mooy seen meilleur loolu xalaatu Takki Kubo la ancien joueur Real Madrid daal di changé club signé na nekkoon na fa ci moom kooku di Famara Diédhiou toll ci fanweeri at ak benn signé na nag contrat bu koy yóbbu ba atum 2026 maanaam ñaari ati contrat lay doon kon mu nekk lu am solo retour la nag ndax moom nekkoon na ci équipe boobule moom kooku di Famara Diédhiou international sénégalais wala bind fa sax li nga xam ne mooy taarixam ndax nekkoon na li nga xam ne mooy meilleur joueur ci li nga xam ne mooy Ligue 2 waaye boole ci itam li nga xam ne mooy meilleur buteur ci benn saison Clermont Foot moom Famara Diédhiou dama ne ba mu fay nekk def na yu ama am solo la saison 2015 2016 ma ngi woon foofule marqué lu toll ci ñaar fukki bal ak ñent manam 24 buts ci saison bobu le mom koku di Famara Diédhiou 51 match yoo xam ne joué woon na ci saison bobu voilà lolu mayon ko mu nekkon meilleur joueur nekk itam li nga xamne moy meilleur buteur ci li nga xamne moy Ligue 2 voilà lolu nekkon lu am solo léegi nag dellusiwaat na ak équipe bobu nga xamanteni moy mooy Clermont Foot mom koku di Famara Diédhiou signé fa li nga xamne moy ñaari ati contrat Cristiano Ronaldo tay ji deng Mam dal dinaay fété li nga xamné moy 900 bit yi nga xamné dugal na ci bés yi la ñu weesu xam nga sax amna luñ ci toftal ndax marqué na benn bit bu ci tegal waaye fofu rek ci Al Nassr xam nga tay ji dañu doon football wala ci jogante gogu doon dox seen digënté ak équipe bi nga xamné moy Al Ahli loolu nak ki nga xamante moy Cristiano Ronaldo wala daldina dina ci fété li nga xamné moy 900 bit yoy nga xamante dal dina koy amal ci bés yi ñu génn mom nak dugulul tay ji ñom dañu mujjé tembo benn ak benn seen al ahli bu ki nga xam ne mooy Edouard Mendy kii di Frankessia ya moo dugal benn bit bi nga xam ne balaa di al ahli dal nañ koy am kooku di Edouard Mendy sax dal di cee wane xar kanam gu ama am solo ci jogante googule Sadio Mané moom itam joué na match yi ba mu jeex tàkk waaye dugalul moom itam comme ni nga ko waxee benn ak benn la jogante googu dal di jeexee Angleterre coach su Brighton bi nga xam ne ci fanweer at ak benn képp lay toll moom la ñu tànn moo nekk meilleur coach ci li nga xam ne mooy weer wii ñu génn muy août bi voilà comme ni leen ko waxee mooy coach bi gën a nekk nga xam ne ñi mooy tàggat sax am na ci ñoo xam ne ñoo ko mag jamono bi ñu gis ne mu daal di wane xarañteem ci weer bi njëkk rek ci li nga xam ne mooy saison bi ak équipe bu néew bu doole boobu di Brighton nga xam ne équipe yu bëree bëri fi mu ne nii voilà ñoo ko ëpp doole waaye daal dina ci wane xarañteem voilà boog nekk meilleur coach ci li nga xam ne mooy ut bi nga xam ne jeexal dañu ko moom kooku ñuy wax Fabian Hürzeler bu dee meilleur joueur bi nag kii di Erling Haaland lañ ko dal di jox ndax xam ngeen moom bi ñu tàmbalee saison bi moom day dugal rek ak équipe boobu nga xam ne mooy Manchester City voilà saison bi moom bu yeboo it gars yi moytu ko ndax moom dal dina teel na leen wax boppam ndax xamal la ne kat li nga xam ne muy wér gi yaram gi muy yëg ci yaram moom nii gëj na koo yëg booba la ñëpp waroon tiit te xam ne saison ren bi du yomb ci ñoom koo xam ne kat gis nañu at yi weesu muy marqué ay bit yu takkoo takku voilà kon xëy na ren jii la gën a wér kon mel na ni ren ji nar na def lu kenn mësul gis moom kooku di Erling Haaland moo tax weer bu njëkk yi moom dal na ci dugal bit yu am solo moom la ñu tànn moo nekk li nga xamante ne mooy play of the month maanaam meilleur joueur ci li nga xam ne mooy English Premier League bi ci mois d'août bi nga xam ne voilà koy génn bu dee Chelsea football club jamono bi am na ñaari gan voilà bokk na ci ki nga xam ne moom la ñuy wax Ben Chilwell bi nga xam ne kat moom saamoon nañu ko ci marché bi écarté war nañu ko sax di ndax bi nga xam ne mooy club bu yees dafa waxoon ne moom gisul ki nga xam ne mooy Ben Chilwell ci li nga xam ne mooy système bi muy footballé moo moom soxlu ko daf ko génne ci li nga xam ne mooy programme bi waaye nag tey jii daal dinañ xam ne nag kii di Ben Chilwell dellusiwaat na ci li nga xam ne mooy voilà marché bi tëj na te yaakaar amatul ndax dana am beneen club boo xam ne mën na fa dem moom Enzo Maresca dal di koy leeral ci jëm boo xam ne xam ne kat programme bi yëpp moo doon kii di benn ci wàll mu dal di dem maanaam li bëggoon mooy mu dem waaye nag gis nañu ne loolu mujjul sotti voilà benn club jënd ko comme nag li nga xam ne mooy solution amul ci mbir moom moo tax dégg nga maam dellusiwaat na ci li nga xam ne mooy équipe bi kon moom dina bokk ci li ne mooy squatu ñii di ndax dina am temps de jeu bu doy loolu moom beneen affaire la mais bokk na daal ci li nga xam ne mooy équipe première bi keneen koo xam ne moom itam dellu na mooy kii ñuy wax Chukwuemeka Enzo Maresca sax di wax li nga xamante ne mooy mbégte bi mu am wala bëgg gi mu bëgg gone gi mu ne ki nga xamante ne moom la ñuy wax dégg nga maam Chukwuemeka mu ne gone gi mën a football la te moom nag bëgg na ko de bëgg na ko trop waaye nag li nga xamante ne mooy problème bi mooy dañoo am li nga xam ne mooy ay attaque midfield yu bëri am daa am ñoo dem waye nak pexé amul ci ki nga xamanté moy Chukwuemeka meeka ndax jul am club bu yees moo tax da fay dafay dellusiwaat ak li nga xam moy équipe première bu Chelsea football club André Lonin ne mom dafa daal di yokk contrat ak ñi wa Real Madrid ndax mom xam ngeen saison bi bu jeexoon rek mën na tekki bagaasam dem fuko neex ñu gis na nak daw ba rek ñu ko don top ngir mu yokk contrat mu daldi di wala amna lu mu don sakku ñi di Real Madrid xëy na garantie luñ ko won dama xamul ndax léegi dañ ko nangom déet lo ci mëna a dégg si ñëwaat contrat la def bu gudd sax bu ko yóbbu ba 2030 mom ki nga moom la ñu wax Andrew Lunin kon juróom-benn ati contrat nga koy xaar jamono bi ak équipe boobu nga xam ne mooy Real Madrid tey ji la ñu daal lu aju ci mbir moomulee moo ngi noonu gars yi loolu la fi gënoon fees waaye leen di topp Sen Sports 221